antum gis ngeen askan wi génn teeru la coalition Diomaye Président Thank you. Koumpentoum génn en masse ngir teeru la coalition Diomaye Président lii di firndeel na nag Koumpentoum nee nañ waaw kon ñu déglu le président Ousmane Sonko mu jottali kàddu le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye diine muy kilifa aada waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi toogal parti bi di Pastef di am mbégte teewaat ci cadre campagne électorale donte nag jaar bu gàtt la waaye mbégte bu rëy la am ci gerte bi ngeen ñu teeru. Koumpentoum est-ce que pare ngeen pour changement. ko gis xam cofeel gi ngeen am ci sama jëmm man Ousmane waaye est xam ngeen Sonko mooy Diomaye xam ngeen kon képp koo xam ne amoon nga yéene ni man damaa bëgg a gunge Ousmane Sonko mu dugg pale xamal ni dimanche bii boo ko teree Bassirou Diomaye Faye yóbbu nga Ousmane Sonko pale ma bëggoon nag ma bëggoon nag yéen ñi ñëpp xam ngeen ni xeex bi yàgg na bi ñu sumbee liggéey beeg léegi def na fukki at 10 ndax 2014 la ñu commencé tey ñu ngi 2024 kon xeex bi yàgg na waaye xeex bi métti na lool lu ne am na ci ay nit faatu nañ ci ay nit dem nañ ci kaso ay nit gaañu nañ ci ay kër yàqu na ci ay liggéey tas na ci lépp am na ci waaye ñun ñi ñëpp dañoo d'accord ni Sénégal moo ñu jaral loolu ndax ñun amuñu lu ëpp Sénégal gis nga yàlla xam nga ñun ñëpp ay jullit lañu ñun ñii ñëpp ay borom gëm-gëm lañu gis nga nit dafa am ñaar ci ñaar dafa am loo xam ne yaa koy tànnal sa bopp ak loo xam ne yàlla moo la koy tànnal réew bi ngay bokk yàlla moo la ko tànnal yàlla la yàlla la soob. mu ne Ousmane Sonko dina juddu ci at sangam ci bés sangam ci heure sangam ci minute sàngam ak ci bërëb sàngam yàlla na neex mu ne Ousmane Sonko Sénégal lay judd kenn ku ne ci ñun bu sooboon yàlla Japon ngay juddoo wala États-Unis mais yàlla daf ñoo tànnal fii Sénégal nit nag dina yàlla tànnal dañ ci war a am fierté ñun ñëpp dañu war a am fierté. nekk ay sénégalais waruñu am complexe américain wala japonais wala français wala allemand wala qatari ñun ñëpp dañu war a am benn fierté nekk sénégalais fierté boobu nag moo war a tax ñu jël suñu lépp jox ko suñu réew. 60 ñu ngi ci 64 ans d'indépendance kii nii yéen a ngi koy defe naa kenn amu fi 64 ans. 64 ans ci indépendance ñu ne ba tey jii ñun bokk nañu ci 25 réew yu gën a ndóol ci àdduna est-ce que loolu yoon la. te li gën a yëngu ñooñu nga xam ne pendant 64 ans ñoo yor réew mi ñooñu ñoo taxawaat tey ne na ngeen yoxaat réew mi joxaat leen mandat 5 ans est-ce que di ngeen ko nangu. est-ce que di ngeen nangu joxaat leen réew mi kon changement dafa jot te changement bi. mooy ñu voteel suñu projet politique ñun te projet politique bi koy incarné tey di candidat mooy Bassirou Diomaye Faye mbokk Koumpentoum xam naa ni borom maletu jaar na fi ku dem candidat boor bële xam naa jaar na fi fan yi moom xam leen ma leen ci candidat boobu pendant douze ans mi ngi woon ak ñi ci douze yi passé nekk na fi ministre des finances nekk fi premier ministre nekk affaires étrangères est-ce que mu defar loon ci jamono jooju mun na ko defar tey loolu mënul na de te moom nee na il est le candidat de la continuité mooy li ñu ba tey te moo tax Koumpentoum mel lii du mel dëkk bu toll ni Koumpentoum lii mooy principal axe bi benn tali bi rek lañ fi doone te éclairage public sax amul fii ci Koumpentoum est jaari la moom mu ne loolu la bëgg a continuer tey candidat de la continuité mooy li li li moom loolu la bëgg ci tardeel Sénégal est-ce que di ngeen kon pour mu jóge il faut ñu farlu cette fois-ci dem jëli carte électeur yi dem voté ji sécuriser vote bi toog ba ngoon yéen surtout jeunes yi surveiller les bureaux de bu ñu toogee ba heure bi ñu ne Bassirou Diomaye Faye mooy ngeen xam ne bu ngeen defee loolu fal ngeen Bassirou Diomaye Faye waaye fal ngeen it Sonko. ngeen wóoluñu dénk réew mi may la juróom at rek juróomi at ngeen xool lan mooy soppiku ci réew mi. ndax ñun du ñun duñu sàcc alal réew mi kenn mënuñoo corrompre soxlawu ñu dërëm bu moomul du ñu yóbbu suñu kër lu leewul te duñu jël intérêt réew mi di ko jaay tubaab yi kon jeunesse de Koumpentoum on a une chance unique pour changer le pays. yéen yéen a c'est vous le changement yéen yéen ay porte changement boobu kon nañu jàpp ci mbir mi ñeenti fan moo ne si campagne bi dugg leen ci àll bi dugg leen ci kër yi waxtaan waxtaan leen ak mag ñi waxtaan leen ak ndaw ñi ba ñëpp comprendre lan mooy enjeu yi ñu gaawantu xam ni occasion bi buñ ko raté 2024 bii buñ ko raté wallaahi dama ko wat bu ñu raté 2024 bii. dinañ ko rëccu de dina métti trop yéen a ngi fàttaliku fi may daanalee yéen a ngi fàttaliku 2019 bi ñu génnee ci élection présidentielle bi taxaw naa assemblée nationale wax cuune bi nga xam ne gars yi cuune nañ ko wax sàcc bi ñuy sàcc alalu réew mi waaye li ma daaneeloon mooy lan mooy juróomi at yi di ñëw Sénégal yi dinañ souffrir est-ce que juróomi at yi passé souffrir wu leen yéen waa Koumpentoum ak réew mi métti yi ñu doon jar cent léegi ñu ngi jar mille ñëpp sonn kon su ma leen nee deux mille rëccee dinañ ko rëcc ngeen war maa gëm. kon victoire au premier tour. victoire au premier tour. victoire au premier tour. Let's go!